نبي الله نبي الله نبي الله شأن عظيم مبين والمصطفى المختار هو المعين asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ahmadou si la jaamub sëriñ tubaa xaadim rasool yéen bokki taalibe yi ma bokkal kër gi te bokk ñoom sëriñ seex te bokk ak ñoom pas-pas bokk ñoom ak jublu bokk ak ñoom ab yan maa leen di nuyu di leen sant di ci jiital sëriñ Ousmane jaw ak Saliwu Mbay eh, ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi bokk toog te jóge Italie Eh, ak ñi nga xamne it ñi ngi ci réew mi te sos ay tool yo xamne ñi nga tudde ay fédération Serigne Cheikh sila dewan ak daïra Serigne Modou Kara la dé am bekté ndax kenn ku ne sawar wa nga nek la nga ca jël eh, mu def aw say nga ñëw def ko ci borom daaru bi ak borom dewan eh, loolu egsi na ci man man len ci sante di len gërëm di len ñaanal seeni addiye seen yéene it xam naa ko li ngeen yóbbante it ci wàllu ñaan it dégg nañ ko bis bi àttan na lépp noo ngi ñaan ci barke sëriñ Touba li ngeen bëgg lépp Serigne tubaa defal leen ko maa ngi ñaan ci barke borom diwaan seen atum ren mi yàlla na ko atum déwén mi dàq te yàlla yàlla def ngeen fekke ko maag yéen liggéey bi rafetlu nañ ko bu baax Serigne Ousmane Diaw ànd naag taalibe yi ñëw fekk fi taalibe yi nga xam ne. yéen a bokk pas-pas te ñoom itam ñu bokk ci fédération bi kenn ku ne it sos sos sa toolub daayira bu loolu jàllee nag rafetlu nañ liggéey bi bu baax a baax a baax a baax sant nañ leen bu baax xam nañ seen yéene ndax li ngeen fi indi kenn ku ne bu sañoon mennum yow yaa koy indil sa bopp ci sa dooley bopp ak sa kàttanug bopp waxuma la sax li ngeen fi indi waaye ku sañoon bu sëñ Kara saqatee rek nga ne ko yaramu yaramu ko laa xam naa su amoon la leen gënal kenn nit kese mooy defal sama mbiri bopp ak mbir mi jëm ci sëñ bi xam nañ ko bu baax ñu leen di sant nag di leen soññ it ndax it boo amee ñoo xam ne da ànd ak ñoom te ñoom dañoo wax ci seen làmmiñu bopp ne ne la foo nu joxañ fa la nuy jëm jamono ji soppiku na soppiku koo xam ne boo leen joxuñut te joxoñ leen fa leen di jox ndimbalul adduna ak lu dafa mel na ñoom mat nañ waaye yow mato ma leen di dolli rek bëgg kenn ku ne lam doon def ci boppam ci lu baax di ko def ci yàlla di ko def ci diine di ko def ci lislaam di ko def ci Serigne Touba di ko def ci kër gi nga xam ne ginnaaw yàlla mooy Serigne tubaa ci moom ngeen dolli ko ndax kat ah nit ki bu fekkee dafa gëm Serigne Touba te yaakaar ne Serigne tubaa moo koy dimbali àdduna ak alaaxira war na war naa xam sëriñ bi lan moo war ci Serigne Touba diggam ak moom. lan moo war sëriñ tubaa diggam ak moom nag mooy nu fexe ba fab Serigne tubaa teg ci sun kaw te bañ a fab sun bopp teg ci ci kaw Serigne Touba fab Serigne Touba teg ci sun kaw ak fab sun bopp teg ci Serigne Touba mooy dañuy ñaan ba Serigne tubaa maynu nu ñu doon taalibey Serigne waqante ci kanam Serigne Touba ci nit ne jox nan la sun bopp àdduna ak loo ñu digal danañ ko def loo ñu tere danañ ko bàyyi loolu moom mooy waqante bi. ci kanam Serigne Touba nak ki nga ko wax Serigne Touba tax motax ci kanam Serigne Touba nga ko waxe Serigne Touba it motax nga def ko motax ci Serigne Touba nga ko def lolou nak wat la wat go gis nak amna wacc ak lak lan moy wacc gi moy lula serigne bi digal nga def ko te bañ la téré dara luy lak gi moy lula serigne bi digal lo man nga bañ ko def te bis bu set nga ne ci lo xamne neexul yalla neexul yonent bi neexul serigne bi lolou moy lak gi serigne Touba nak fab sa bopp teg ci kaw sëriñ tubaa ak fab sa bopp fab sëriñ Touba teg ci sa eh, kaw ñaar yi rekk la addiya moom ak fab sa doole di ko jox mooy alal alal ji mooy addiya doole ji mooy sëriñ bi woo la nga wuy si ko mu lay liggéeyloo nga liggéey xool bi mooy nga toog bëgg sëriñ bi ba yemale woo ko kenn boo waxee nga ne yarxamu ko laa bu noppiwul nga jooy yett yooyu nag dafa mel ne dafa dajaloo doonut lu mën a ñàkk ci ku bëgg a nekkub taalibe buñ nee sëñ bi nee na doo xool ah mankat kat am naay bor bala may joxe addiya naa fay saay bor ba noppi mankat kat ay war na ma naa joxe saay dépasse ba noppi man fan njaay mais ñu ma may am na lu ñu ma fa dël naa ko naa ko far ba nopp man sama xarit bële wala kee may bëgg a takk te takkaguma ko am na lu may laaj ñaan na ma portable te joxaguma ko ko boo defee yooyu yëpp ba noppi soo ko jox sëñ bi addiya rek tuddatul addiya sarax nga joxe sarax ak addiya dafa bokkul mag ñi dañ daa def dañ daa bay ba mu egg ñu fob tool ba joxe dem nag yalwaani dunde loolu mooy addiya kon nag kenn ku ne fa nga tegoon sa bopp ak sa xol teg fa sa dënn ci Sëriñ tuba maa ngi leen di ñaan ngeen teg fa tegaat ko fa te di ko jéem a weesu ndax bis dana taxaw bo xamne kep ku la digal te digalu la ci señ bi di la wante te la Serigne Touba da ngeen bok tok ci kanam Serigne Touba te da ngeen bok rus kon nak ñi ngi leen di soñ bu baax ndax dekk bo dem la fa nek te yaakar señ diiw ba day bari lool buñ dajalo di liggey it ñey bindu day bari lool waaye buñ dajalo di liggey ñey dajja day neew lool lol it bokku ci ak talibé te lu wuñu ko du tax kenn am lim bëgg. ña koy defit du tax ñu am lañ bëgg ndax da seet ña nga xam ne ñoom ñoo munta manqué di jóge fu sari di teew tey fu sëriñ bi woote am na ñoo xam ne dañ leen di romb te du ñu ñëw waaye da ngay xool boo ñëwee ba fii ci Sénégal ñu bokk dëkk ki nga xam ne woote sëriñ bi du ci wuy ji laajteb sëriñ bi du ci jox amul kër gu gaa yi amul amul oto bu gaa yi amul dencut lu gaa yi dencul daanaka sax gaa yee koy gën a gën a gën a denc te ñoo ko gën a dal xel ndax bëgg serigne touba diko liggéeyal dal na xel waaye nekkoo ci serigne bi nekk ci sa bopp sama xel dal ku ko defit sama xel yomb naa dal lool wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu نبي الله المختار وهو المعين مبارك